ma ne saa fi meeru Kaolack daf fi ñëw ndax dafa am ndaje boo xam ne ñaari fan la fi def mu woo ñu dimanche nañu egg si dimanche ñu tase secrétaire général ànd ak directeur bi ñu ñëw accueillir ko mu dugg ci jardin man maa ngi woon borom di politique mu woo ma ma ñëw vingt 21 ñu def bi dimanche ci guddi ñu ne talaata ma ne baax na wàññiwul dara ndax xam naa ne xam engagement loolu lañ def lii nag administration ville bi les villes les adjoints maires les adjoints qui sont là de la ville ñoom administration secrétaire c'est qui ont organisé l'événement des dama rek comme d'habitude

ñii ñëpp ay kilifa lañ ñu ànd ak ñoom ci dëkk bi bëgg dëkk bi communateur communateur yaa ngi si bañ ma jëw dëkk bi mu ngi mais ñëpp xam nañ ne Cheikh Mbaye mi nekk ci xolu maire mooy organiser bi yëpp nga xam ne suñuy référence lañ sur le plan coutumier traditionnel ñu ngi fi ñëpp accueillir nañ délégation marocaine den wax di wax waa Maroc jërëjëf di wax waa borom jërëjëf yokk ci nekk lii ñu defal dañu foog ni jardin rek la jardin ku koy wax garab yi tax ngay wax waaw jardin la naam jardin la bala ngeen di gën a xam jardin la ñu dem ba garab yi jóg wante nag bu dee soo jardin bi terre dem leen ci terrain aspasté ak terrain àndal mais yokk nañ ci dara rek espace culturel gis ngeen sànq ni acteur culturel yi liggéey fii kon espace culturel kon loolu lañ ñu permettre ñu réaliser loolu nag dafa na a ëlëk ñun ñi ngi bëgg na ren tambali tàmbali yeesalaat hôtel de ville ndax hôtel de ville bi dafa war a mel neneen ñu ngi ak Maroc ci maison des arts ñetti yooyu trio bu am solo waaye bu fekkee si léegi ñu defaraat boulevard yi ba mu yàgg tëj ñaari canal yi waaye xar kanamu te soppeeku loolu ñu bëgg ko ñu mën képp moo dara am yàlla yàllaa ko bisi kon yéen ñi teewe nii lépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di len ndokkeel di len ñaan ñaanal yalla yalla yalla yàlla ñu may ay yeneen i yeneen i yeneen i inauguration yalla yalla def ba benn nit ay nit di jógee yeneen dëkk ñu ne foo leen jëm ñu ne nous allons à Rufisque ndax fofu dafa am lu fa dëkk boobu dafa nekk dëkk boo xam dafa taaru nit ñi dañu am koom dañu juboo dëkk bi dafa leer dëkk bi dafa am garab dëkk bi dafa set organisé Que monsieur le maire travaille le week-end et toute la semaine avec toute cette équipe-là et qu'il se bat pour l'intérêt de votre ville, Rufisque. Cet événement, il montre vraiment la fraternité éternelle entre le Maroc et le Sénégal. C'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui avec vous à cette cérémonie d'inauguration du jardin public du Révisque, réaménagé en partenariat entre nos deux communes. Amis, dans le cadre du programme la coopération décentralisée internationale la Royaume du Maroc que les terrains qui se trouvent dans le jardin est architectural traditionnel. Au-delà de l'intérêt concret, ce projet pour la population locale, la coordination établie entre nos deux parties pour sa réalisation a permis de consolider davantage les relations de coopération et de solidarité existantes entre nos deux pays et de renouer avec notre histoire séculaire d'échange et de partage, comme il nous a permis d'enrichir et de renforcer les liens d'amitié et de partenariat qui nous lisent. Mesdames et messieurs, permettez-moi, permettez-moi en cette heureuse occasion de vous féliciter chaleureusement pour notre coopération fructueuse entre la ville de Rufisque ainsi que la ville de Dakhla. Et merci pour cette chaleureuse réception qui montre l'intérêt qui donne la République du Sénégal au Royaume du Maroc ainsi que la fraternité entre nos deux pays. Merci beaucoup.